monsieur Diatta Fall maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa lay fay. nga euh, secrétaire général bu syndicat démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk à la CNTS coordonnateur bu collège des délégués de Dakar Dem Dikk récemment ngeen def général euh, générale euh, lan moo taxoon a jóg assemblée générale bi exactement. Ah, merci assemblée générale bi li taxoon a jóg ñetti pàcc la woon. première pàcc bi comme niñ koy waxee euh, augmentation dañ doon euh, demander le président Macky Sall mu yokkal ñu suñu salaire parce que euh, daf ne année sociale la deux mille vingt trois beneen bi mooy pour kaar yi nga xam ne boobu ba tey ñu ñu koy dig Euh, depuis deux mille vingt deux bi toog nañ xaar ko foogoon nañ sax ci biir deux mille vingt deux bi dinañ jot kaar yu bees pour au moins soulager li nga xam ne tey moom mooy jafe-jafe transport bi fii ci Sénégal boobu ba tey jotuñu ko ci loolu lañ doon aartu tamit beneen bu mujj bi c'est par rapport ak loo xam ne peut-être dañ ko gis muy dox di ñëw te dañ ko fi gisoon mu am ba mu jaraloon ñu ñu commencé di jàmmarloo ak directeur ba fi jóge muy Omar Boun Khattab Sylla muy ay problème wu yenn des fois ay injustice justice rawatina ay affaire euh, ay prestataire di jël place yoo xam ne liggéeykat yi nga xam ne ñoo fi nekk def dix ans quinze ans ñoom seen ay post de travail la voilà euh, tey ji euh, lan mooy jafe-jafe yu liggéeykatu Dakar Dem Dikk jafe-jafe yoo xam ni bëgg ngeen vraiment ñu taxaw si waa kay première jafe-jafe comme ni ma ko defee ci introduction bi mooy euh, liggéeykatu Dakar Dem Dikk naam ñu ngi fayeeku seen ay salaire mais jafe-jafe dëkk bi ñëpp gis nañ ko xam nañ ko tey nit ku ci nekk sa ngor kese ngay demee parce que démb li doon jar fukki dërëm tey mu ngi jar ñaar fukk te tam yàlla dogal euh, le président Macky Sall mu ne année deux mille vingt bi année sociale la buñ année sociale moom mu dem ba au commencé di yokkal ñenn ñi salaire muy fonction publique te ñun même bu fekkee nekkuñu fonction publique ñun liggéeykatu Dakar Dem Dikk dañu jàpp ne tey ci palier yi nga xam ne tey yuy doxal am réew ñun dañ cee bokk muy côté transport boo xoolee santé muy wér-gu-yaram boo xoolee éducation muy njàng meeg yépp ñoom ñépp yokkal nañ leen donc benn palier moo ci des cinq paliers yi benn moo ci des muy transport kon transport tey bu ñuy yokk ñun defe naa waruñu ñu bàyyi ginnaaw parce que li may wax rek nit ñi dañu gore parce que car bu gudd muy douze mètres nga koy dawal te bu weer deewee boo demee banque ba doo fa gis lu dul ay trente mille wala ay quatre vingt mille sax nga war a fay location war ci dund ak ay bor donc loolu defe naa ni yorul doomu aadama bi liggéey xam nga mais dañu ànd ak suñu ngor ñu ne nag comme c'est une occasion que le président moom mu wax loolu defe naa ni moom fàttewuñu la ñu jàpp moom daf fàttewul mais comme fàttewuñu dañ koy rëf dañ koy rek dolliwaat hmm. ne ko mu ñuy am lu ñuy defal lu rëy ci biir Dakar dem dikk gis nañ ko wax dëgg yàlla mais dañ ne ko comme day yokk salaire nañu jàppale rek mu yokkal ñu suñu salaire pour que ñu gën a mun a am stabilité parce que dëkk bi fépp metti donc loolu moo doon point phare bi nga xam ne tey moom lañ dofe assemblée générale pour demande son excellence le président Macky Sall mu jàppale liggéeykatu Dakar dem dikk ci yokku salaire loolu moom bu ko defee wax dëgg yàlla dina baax trop trop trop parce que metti na lool mais dañu ànd ak suñu ngor. Voilà. donc loolu moo doon premier euh, point boo xam ne bu am solo la. Mm-hmm. ñu mm son excellence mu dégg ko bu baax a baax. xam ne liggéeykatu Dakar dem dikk wax dëgg yàlla euh, soxla nañ ko lool lool lool lool. Mhm. léegi am na beneen ponk parce que yaa ngi wax sànq renouvellement parc automobile bi est-ce que euh, ñàkkum ot loolu moo waral euh, ñu nit di xaar lu yàgg-yàgg ci arrêt de bus pour mën a gis bisu Dakar dem dikk. effectivement loolu euh, dafa nekk loo xam ne ponk bu am solo la te dama defe ne sax kaar yi pour mu ñëw ñu soxla nañ ko mais dama jàpp ne état du Sénégal moo ko war a gën a yàkkamti parce que lu tax mm-hmm. parce que état du Sénégal dafa jëm ci ay restructuration bu réseau de transport boo xoolee réseau en cours bi am na yu am ak réseau à venir bi muy BRT bi ak yooyu donc day am solo que Dakar Dem Dikk tey bu amee kaar yu bees non seulement dina tax liggéeykat yi seen xel gën a dal liggéeykat yi ne ah ñun de ay la yéwén suñu liggéey bi am na benn maanaam am nañ ci yaakaar am nañ njeexintal mais tamit euh, day tax Dakar Dem Dikk li nga xam ne tey à chaque fois mu ngi koy soulager maanaam bu grève amee ci yeneen transporteurs yi mu ñëw euh, jël relais bi di jël nit ñi di yóbbu di indi donc loolu au moins day soulager day gën a soulager état du Sénégal tey boo xoolee tamit day tax kaar yu bees yooyu impact bi nga xam ne tey bus yi BRT bi dina ko am ci biir Dakar dem dikk parce que boo xoolee lignes yu bëri day impacté bu commencé transport en masse bi bu commencé muy ligne cinq bi deux mille dix deux cent dix neuf cent vingt et un et cetera yooyu yëpp day impacté léegi bu carré la ñëwee dina permettre vraiment ñu mun a euh, def li ñu war a def di transporter liggéeykat yi ñuy dem di dikk te du ñu am benn jafe-jafe dina permettre ñu gérer la totalité mooy rabatement yi nga xam ne tey ñun ñoo ko kii parce que loolu sax day yoon bu ñu amee kaar yu bees on va gérer euh, rabattement yëpp la ñuy gérer nga xam ne transport en masse bi dina dox ci côté parce que gisuñu ne loolu concurrence la ak ñun dañu gis ne rek euh, évolution la développement la ci dëkk ñu am yeneen euh, type de transport yoo xam ne day am donc ñun Dakar dem dikk dañ ko rafetlu parce que projet président la te gis nañ ni peut-être am na njariñ mais ñun li ñu bëgg daal mooy dañ ñu dikk depuis deux mille vingt deux mille vingt et ñu ngi xaar ay car cent mille deux cent mille quatre cent bus Omar Bun Khattab ñëw fi dig ñu bus yi ba deux mois ñun dinañ jot bus yi deux mille vingt deux jeex na ñu ngi deux mille vingt ñun foogoon nañ ni deux mille vingt deux dinañ ko jot wala début deux mille vingt trois début deux mille vingt trois ñu ngi nii di ñu waxaat ay juin dañu sonn fim ne suñu yaakaar fi ne wax dëgg yàlla ku la wax ne xelam dal na ci biir Dakar dem dikk waxu la loo xam ne moo am transporteurs yi maanaam du moins euh, usagers yi maanaam ñi nga xam ne ñooy taxaw di xaar kaar tamit sonn nañ te ñoom seen xel yépp ak xel mu dal bi ñu am ci Dakar dem dikk amuñu ko ci beneen transport mm-hmm. donc ñun li ñuy ñaan mooy au lieu que ñuy wax ay juin ñu ngi ñaan yàlla di ñaan son excellence la président Macky Sall lépp lu mu mun pour accélérer ñu kaar bala balaa avril au moins kaar ñu mun ko jot nga xam ne dinañ ko defe défilé 4 avril liggéey muy euh, transport muy euh, usagers yi maanaam clients yi population sénégalaise bi nga xam ne tey ñoom ñu ngi muy état du Sénégal mu ngi def kéemtulaay kàttanam pour satisfaire leen ñoom it ñu gis ne ay la yéwén Dakar dem dikk am na ay kaar yu bees loolu dina permettre vraiment population soulagée liggéeykat Dakar dem dikk itam parce que boo xoolee luy jël presque vingt milles nit yoo xam ne mu ngi biir Dakar dem dikk maanaam trois mille agent ak seen ay famille ak yooyu yëpp donc boo ko dindee ci Sénégal donc vraiment li ciy des du bëri te loolu lii day tax ñoom ñu gën a am doole ba pare emploi politique de l'emploi bi nga xam ne son excellence mu ngi koy wax day permettre vraiment ci côté transport euh, population yi ñu bëri xëyum ndaw ñi ñu mun ko ñu mun ko fàtt. Mm-hmm. léegi loolu lu ñu ñor la. Mm-hmm. léegi euh, naka nga apprécier yow monsieur Fall DG bu bees bi di Ousmane Sylla na ko gisee ni muy gérer Dakar Dem Dikk waaw xam nga fii euh, li ñuy wax rek ñun def nañ fi six six directeurs fekk nañu fi ku def dix-sept ans de service voire vingt et ans de service donc li lay jaaxal du bëri ku ñëw ku ne da nga am yow sa sa système de management donc directeur yi fi aw yépp ku ci ne aw na def lu mu war a def ñun ñi weesu dem nañ donc ñun Ousmane Sylla lañ def focus Ousmane Sylla c'est le nouveau DG bi mu ñëwee ubbil nañu buntam wax na ak ñun donc ñun ku ñëw da ngay ubbi sa bunt ñu wax ak yow ne la nag ñu ngi lay xaar de pied ferme pour nga résoudre problème yi nga xam ne moo am Dakar dem dikk donte problème yi nag bëri na mm-hmm. mais ay la yewen buñ ci jàppee nga def boo taxawee ñu taxaw lu bëri mun na réglé wu mu ngi def ay kemt lay kàttanam moom donc cent jours yi def na ko mais cent jours mënul déterminer li nga xam ne tey mooy yàqu-yàqu ak manquement bi nga xam ne moo fi am kon ñun tollooguñu foo xam ne dañ koy defal bilan moom nag bu ko neexee il est mu def bilan boppam mais fi ko Dakar dem dikk di xaar dafa rëy dafa bëri parce que li fi nekk ak liñ fi war a defar moo bëri un car amu fi bi mu ñëwee am na lu mu fi def c'est vrai lu mu commencé mais li gën a am solo mooy ngay waxtaan ak partenaires sociaux donte nag ubbi na ay brèche di waxtaan ak ñun mais tam am na loo xam ne def na commencé na ko def muy erreur boo xam ne dafa daloon ki nga xam ne mooy naataangoom muy euh, Omar Boun Khattab Silla muy turu prestataire déjà am na six prestataires yoo xam ne nee na de jël na ko te loolu wax dëgg yàlla poste yañ leen jël ñu nekk fa dafa nekk post yoo xam ne ñi fi def dix ans quinze ans yooyu ñoom seen poste la pour au moins ñoom seen wàccukaay la maanaam bu ñu soxlawaan foofu dañ leen daan jël ñoom ñu dem ñu fat foofu ñu liggéey fa donc ñoo yooyu mënu fi ne mu nekk ay yaakaaru liggéeykat yu fi nekk ba pare nga koy jox ñeneen loolu wax toog nañ ci ak moom waxtaan ak moom nekkoon na fexe nan la koy dindee nga xam ne ñi ko moom ñu jox leen ko de ce fait yooyu bu koy def rek xam nga bu koy bu buy def erreur yooyu bu ko moytoo peut-être lu bëri mun na ci réussir mais su fekkee moytuwul erreur yooyu fa moromam yi jaaroon foofu lay jaaraat parce que li ñu mayul keneen ay la yéwén moom duñ ko ko may il faut mu leer waxtaan baax na mais waxtaan di trouver ay solution ensemble dafa gënati mhm. ñun nag ñu ngi koy xaar ci foofu ñu ngi dégg nag lu bëri parce que kër gi nag ay la yéwén moom mooy kilifa moom mooy joxe ma euh, tout ce qui est organisation moom moo ko moom ñun on parle pas de cogestion ñun du ñu wax ay cogestion que ñun ñoo koy wax ay fu muy teg bëtam ak yooyu non mais sañ-sañ la ci moom tamit muy devoir ak encore ci moom mu jóge ci moom ñëw ci ñun pour que mu ñuy informer ñun it ñu koy jox suñu xalaat bu ndaw mu xool suñu xalaat li ci baax mu jël ko méngale ko ak xalaatam pour mun a avancer defe naa ni ñun foofu lañ koy xaare am na yu bëri nag yu ñuy dégg par rapport ak euh, ci kër gi ak yoo xam ne peut-être nee nañ dina am muy ay nomination muy ay organisation ak yooyu yëpp donte dañuy dégg mais gisaguñu am na ci yu ñuy dégg yu rafet am na yoo xam ne ñu ngi koy dégg yoo xam ne peut-être mun na ko yàqal comme dégg rek lañ ci am ay la yéwén. Mhm. duñ ci sori. mais dañuy bàyyi ba nga xam ne nag posé na acte bi bu fekkee wax dëgg yàlla loo xam ne dañ ko war a waxtaanee moom pour que moom mu rectifier ko pour kër gi gën a avancé ñu nekk en bonne cohabitation vraiment loolu dinañ ko waxtaane ak moom donc dañ koy dénkaat rek euh, dafa ñëw nekk jeune yàlla kii muy euh, le président Macky Sall am yaakaar ci moom liggéeykat yi am yaakaar ci moom pour mu relever Dakar Dem Dikk donc na nañ na def kemt lay kàttanam ba nga xam ne dina méng dina dina juboo dina waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy partenaire sociaux yi ñu koy dolli xalaat parce que am na yoo xam ne ku fi def dix ans quinze ans vingt et un ans defe naa ne du la wax loo xam ne day yàqu rawatina li liggéey ñun Dakar Dem Dikk rek la ñu am donc ñun lu koy defar rek ci la ñuy dox du ñu dox mukk ci loo xam ne da koy yàq kon donc na jàpp ne lépp loo xam ne jël na ko ñu ne ko ah directeur jéem a la xool ah est-ce que doo xoole waat fii côté bi na jàpp ne ñun dañ koy jàppale mais duñ ko yàqal waaw donc ñun ci côté boobu ku fi ñëw côté boobu la ñuy ànd ak yow mais nag boo dëgëree bopp ah ñu bàyyi la nag ak sa dëgër bopp ñun nag la nga xam ne ñoo ko moom en tant que ay syndicaliste ñu taxaw taxaw boobu donc ci foofu daal lañ koy xaar donc li ñuy dégg bëri na mais comme dara sotteegu ci donc ñu ngi koy xaar à de ferme bu tegee rek après ñu jéem a xool jéem a euh, euh, daal di euh, kii comment daal di koy méngale ak li nga xam ne jàpp nañ ne mooy doxal kër gi bu fekkee jàpp nañ ne du doxal kër gi après dinañ ci waxtaan ak moom ñun daal ku fi ñëw ñu ànd ak yow doo dégg ci mais presse doo dégg ci média ba keroog nag ngay dëngal soo dëngalee dinañ toog ak yow ci rukk wax ak yow ñu waxee yow mu dëgër nag ay la yéwén li nga xam ne moom la ñu am comme arme dinañ ko génne ci biti yooxu wàllu pour ñu wàlluñu Hmm. ngeen def uh, grève wala dara par rapport ak seen revendication yi rapidement rek comme que temps bi jeex waa xam nga xam nga syndicaliste moom ala kulli alin à chaque fois rek day taxaw di xaar avant marque pré rek lay xaar ñun fi fi ñu toll nii gisaguñu loo xam ne peut-être euh, moom jar na ñuy dem parce que liñ naan syndicat euh, du biir day xëy rek wasin ñun mën nañ la bañ a wax dara ñu xool xam ne yow fa nga jëm baaxul à la minute ñu alerté la defoo ci dara ginnaaw suba nga dégguñu ci rajo yi ak télé wala ñu arrêté li ñu am as ci ay bus waaw ñun fo noonu la ñuy doxee duñ la wax fu ñu jëm l'essentiel bu amee problème dinañ toog ak yow soo dëgëree bopp nag la ñu war a def moom du nit moo ñu koy teree def parce que nag suñu survi entreprise suñu survie emploi ñun loolu moo ñu ñor. voilà ouais. kon Diatta Fall euh, Rewmi FM ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. Mhm. waaw maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit vraiment euh, di leen santaat bu baax a baax par rapport ak temps bi ngeen xam ne jël naa ko ci yéen. di wax ne lii lépp rek pour euh, rafetal la pour li nga xam ne mooy suñu Dakar dem dikk li nga xam ne tey population bi tamit état du Sénégal bëgg ko service bi nga xam ne tey bëgg nañ ko jox muy euh, population sénégalaise bi donc ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ñëpp di leen wax jërë ngeen jëf et très bonne journée. voilà may fàttali Diatta Fall moom mooy secrétaire général bu syndicat démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk à la CNTS nekk coordonnateur du collège des délégués de Dakar Dem de Dakar Dem Dikk délégué de